ñetti fan rek dess ci ñaari fan yoy nga xamne wa wilaya ñu koy amal fofé ci ndakaaru di fatali ko Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Farma ak Serigne Mbacke Soxna lool lolé nak tax wa wilaya am ñom ñepp maasee dëgmal wuti li nga xamne mom moy mooy téyeer ngir ñawlu ay digisement lolé nak taxone ñu jël suñu micro doxantu ci téyeer laaj leen nan lañ dundee xew-xew bi mboolem téyeer nga xamne dekk nañ leen suñu micro kaddu yi lañ fa tatane moy ñi nekk bi ci dos Xudoos di ñawal wa wa daayira wilaya seen journée bi ñu wajal su ma doon ñaw yu bari ñu koy ñaw fii ci Daaru Xudoos la Aliou Ñaan tailleur marché dos Xudoos bokk daayira Nasru Minallah wilaaya Ablaye Ñaan kenn ci mbooloo mi yooyu ci ci aadaat Ibrahim Khadim di taxawu ne tam man la Ousmane Fall tailleur Touba Daaru Xudoos Thierno Fall daayira Ridela secrétaire man la Mame Dame Ndiaye bokk section Taïf la commission sociale sous section village jeune premier première adjoint tamit commission sociale section Taïf bokk tamit ci membre conseil fédéral yi nga xamné moy fédération bi wayé di première adjoint sous commission santé nationale. man na soxna Fatou adjoint secrétaire administratif bureau fédéral Top, soxna na bu Mbacke secrétaire administratif bu secrétariat wilaya femme topat soxna nopp mbak di vice président it wilaya femme bu touba top soxna day fatou mbak mom day mel ne ndakaaru ji bëgg nañ ñëpp sol ay baxa ah. ndax nit ki tamit day sembulu wilaya bo xam boko solé ngeen xamni ñi ay wilaya la muy baxa bi ak palman bi wa indi ci fi ñëw yi mom moom yu bari moo xam ci walu goor mo xam ci walu jigéen mën ci def suñu kenn laa kattan daal lépp yéwén incha allah. yàlla dogal na tamit am na ñu ñu féetal ñoo xam ne ñu ngi koy ñawloo pour waajal ndakaaru yi mel na ne sax liñ ciy def dana xaw a jàmm ci diggante feeg Ndakaar ndax ñëpp jógandoo nañ pour ko am. waaw ñu ngi ma ciy liggéeyloo bu baax ndax wilaaya dafa nekk loo xamante ni bi képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah rek ci biir wilaaya nga bokk ndax daayira la boo xamante ni bi njariñul neen la njariñul neen nag ku ca nekk moom lepp lo xamne luy njariñ la rek danaka man nga boo aawee fa nga wara aw rek man nga ca baña mucc pour muy bax rek da nga nan nako yott Ousmane mu ñawal mako ndax ndaxte dal sama couleur rek mom dal may na ma yobbu fa sama liggéey mu liggéeyal mako ko mom mi ngi ñëw bu baax waaye li galan ko après moy dañ koy yéex indi indi bu mu def ay 3 jours 4 jours kene ko ne bëgg la accélérer te doo mëna mën a boole aussi ñëw yi ak liggéey bi nga xamne jox na la ko nga war dox ci liggéey ci wilaya bi ak relation yi nga war dox ci wàllu social bi daanaka daf lay empêcher da ngay nekk da ngay xaw a mel ne ku jaxasoo parce que da ngay boole di contrôler liggéey liggéey bi dina sax ci sociale bi bëgg aussi tam di sàmmonte client yi ba seen ñëw di bañ a tardé loolu itam ay difficulté lañu ci am yoo xam ni daal vraiment bu ñu mën di dimbali yu mel nii su amatee ñu teel a organisé wu teel a indi ay ñëw yi ñu mën ko teel a programmé mën nañu ko teel ñëwaat mais xam ndax diggante bu gàtt bi moo ko xaw a jàmbar rek parce que biñ ko waajalee ak ak biñ jëlee ñaw yi di ko ñaw diggante boobu dafa dafa dafa xaw a jàpp daal daan bu amatee daal bu kii ñi ñaw yi ñuy xaw a gaaw te dina gën a arrangé ñaw aussi. waaw jot nañ ci ay ñaw de wax dëgg yàlla noo ngi ci ajite suñu kam te lay kàttan tamit fexe ba mu kii da ci am nañ nag wax dëgg yàlla yeexa yeexa nañ ko ba àgg ci lool ndax fi ne am nañ ba léegi ñëwaguñ te bëgg na ñëw ku leen ñawal euh, tey la talaata xam nga àllarba rek jot naa ci ay ñëw yu bare bare bare bare bare macha allah dañ ma ci yor sax daanaka booy xool sax mënumaa ñaw sax yenn yi ñoom moom mi ngi feeñ baax baax solidarité moom waaw solidarité bi moom am na solo parce que loolu moom dafa bokk ci li tax euh, ñu boole ñu ndax mépp mbooloo mu ànd te yàlla tax war nañuy solidarité di jàpp mooy jàppalante ngir yàlla tamit gis nañ ne mi ngi am xëy na nag war naa gën a am ndax lépp lu ñu def rek ak lu ñu def lu feneen am na ci biir mbooloo mi daal kon nañ gën a bàyyi xel solidarité gi biir mbooloo mi ndax lépp a ngi ci biir mbooloo daal te comme nit ki da nga koy woo muy ñëw nga koy laaj mu lay jox sooy def war nga koy def loolu ndax loola man di nekk a ci wilaay bi tam daanaka fi lay ñëw loo comme que nag tëy bari la ñii day dem fee ñii dem fee rek waaye man sama côté moom wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne bari maa leen maa ngi ñëwal wilaaya doon na yaay nag soññee biñ ciy defaat mooy nit ñi tamit xam ni lu ñuy jëggaane daa war a ñàkk mooy musul kër gi jinaxe kër gi naa loolu ñun ñëpp xam nañ ko place Baye Darou Baye Darou Sène moom yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ci wilaaya tournée bi sama bamba maas na ci te xam naa ne li ma wér suñu Cheikh Mbacke a nga xam ne déglu nañ leen fa ñoom itam bi ñu paree kàddu yi soññee yii lañu wax pour jëm ci bis ba muy nit ñëpp bàyyi xel ci bis ba lan lañ fay wuti dem bi daal mooy ñëpp am pas-pasu def ko te yàlla rek tax te xam ne dem boo xam ne delloo njukkal islam la lañ ci jiblu uh, ak wane deug deug doole l'islam ak wane yu nit ñu ni ñi wane yu nit ñu bax ni tan seigne cheikh ben fatma ak seigne bakki soxna lo di ay nit ñoo xam kenn amul lo leen fayé di ay référence yo xam képp ku jël ci ñom di xol sa dundu mën na bañ am problème te yalla mën na def dundu jak ci aduna sax jëfut waaye yalla mën na def nga réussir lu bare bare bari ci aduna kon ñi dem dagaan ñepp nañ bayyi xel ne lañuy jëli bind ngir bu ñëwé man ko appliquer mu seen dund gépp man lay amal njëriñ dal nañ ko bayyi xel ta baña dem rek ngir di yëmu ci wax jaag lañ fay def waye nañ dem ngir ngir jël lañ fay def njëriñ ya ñëw jëriño rek lañu yóbbu woon kupentum daal moo ñu yobbu fay ngërëmul suñu borom rek lañuy wut ndax li ñuy def bari jot yobbu ñu ndakaaru te setané wuñ fa dañ fa am luñ fa wara def defe def am luñ wo aduna ngir am ci luñ ci wax ak ñom lool tamit bu ñëwé ñu fexe ba fekk fa loolu ndax ki santaane li dal wax deug yalla buñ ko indi tumuranke ke na ci bamba ji bi ko lim wax tamit du len luddul dul lim suñu borom sant noy ande def ko rek lolou rek kay dayer passef biñu am ba taxawal bis bu melni passé bobu ñu gën ko fonk gën ko taxaw ndax liggéeyal serigne touba yombut ne di ndaw ta village bo xolé ndaw ñi bi dal won nañ daayira yépp ne ni lañ wara dox doxe loolu maa ngi leen ci gën a soññ bu wér wér képp koo xam ne nga ak man ay kàddu wala ay at rek maa ngi lay gën a soññ ci lu mel noonu ci ak taalibe ndax danoo woote journée islamique islaam yi nag boo ko diggee ci baat boobu lépp diin daa dugg ci biir kon kuy waaj na waaj ci ci ci ak dal na waaj ci comportement boo xam ne boo demee ba ndakaaru ña la fay gis bu xoolee sa comportement xool sa jëmm dana xam ne yow mii kat fi nga jógee diine dëgg moom la fay dund waaye bu ñu foyee di loo xam ne du ab taalibe baa ñu foyee loo xam ni walla ñu sol col goo xam ne ku la gis din dund xeeb loolu maa ngi koy sant sama mbokku taal bi war dem yëpp du ko soññ sama bopp ñu waaja ko bu baax baax baax ànd ko bi yar ak i teggin ak taalibe dem ak jàmm di ko jàmm di bàkk Sëriñ Tuubaa mooy Daaru Xudoos euh, fii ci wetu essence essence bi rek walla diggante <coughs> essence bi la première mbedd deuxième mbedd fii mooy place bi ñun noo fi nekk Ablaye Niang ak Daouda Diop ak Moussa Dangoro mi di leen nekk di yëngu ci métier mi place bi boo dee jógee forage da ngay ñëw ba euh, fi rab yi di mbedd bi nga xam ne fi la rab yi nekk di jaay jaay la muy xale yooyu nga jàdd jublu penku sa sa sa gauche première place deuxième place troisième foofu la place bi toll bu dee yaa ngi jógee côté jumaa ja da nga ñëw ba station bi am na buuse yi fu ñu nekk mbedd bi buuse yi nekk bi ci topp ci ngay jàdd sa droite à gauche première place deuxième place troisième ci foofu boo duggee rek ci benn station rek. place bi mi ngi ci ñaari étage Bara ñoo ko Taif Broderie ñoo ngi ñaan bu baax baax mbokk yi ñaan ci suñu borom dafa ñu ci tawfeex tey siir dafa ñu ci xéewal ba képp koo xam bokk ci liggéey bi loo fay yittewoo rek mu mën jàpp ni gis doxantu nañ ci ak ñoo ñu xam ne ñoo di jaay kàddu yi lañ ñu ñoom itam. jërëjëf Moussa noo ngi lay siyaare bu baax muy lu am solo ci wàllu tën ndax bu fekkee dañuy wax tën yi dara jiituwu ci commission sociale war koo saytu te man sociale à vie moom lay liggéey ndax def naa formation cuub euh, dañ daan cuub ay années yee passé muy congrès yi passé waaye xool ne percale bi boo ko cuubee nit ki lim ci soxla pour am am am am bu mu sol du day day xawa a ci posam ndax percal mo certe mo mu ne amatul lees looloo tax ñu indi du bayyi indi palman bi nga xamne wote nak benen façon palman bi ndan ciup indi wax bi lepp mëna a doon économiser bo xamne dañ ko def ci nit ñi. affaire tenue bi mom deug la dañoo dajawon woon ñun ci suñ biir ñoom ñun fédération bi waxna dañoo bëgg ndox yi wilaay yi nekk ben couleur bi nekk ben loolu moo tax ñu tiisu tubaab bi palmaan bi it tiisu tubaab bi la woon. lii tax ñu indi Dubaay bi mooy Dubaay bi da nga ko mën a sol yow mi nga xam ne da liggéey soo ko solee yendu bu ngoonee boo ko fóotee mën nga koo fóot weeraat ko boo xëyee solaat ko doo ko paase. beneen tiise boo def loolu nag da nga koy passé doo ko mën a utiliser woo loolu tax ñu indi Dubaay bi ci ci ci wàllu googu daal su waaw jaay nañ ci lu bare bëri commencé naa manqué nag bu yàgg waaye nag jaaykat nag day am pexe liñ ci am dafa manqué ñu am diir jaayuñu ndax palmaan bi ci boppam maa ngi ba xëy it dem nañ ba amatu Touba daanaka li ñu am Dakar lañ koy jële muy ñëw dem nañ ba am ci diir boo xam ne nii dafa manqué may suub ay palmaan di lijjanti it ay wilaya ci biir biir Touba ci sama roqi roqi Touba yi ne man sax mun ay egg fa mu mën a am waaye jot naa am juróom-ñetti pis yoo xam ne nii man tuba laa ko jëlee. si daal mooy manqué gi mu manqué woon dañuy ñëw ci man te ku ko manqué ci man ngay ñëw ndax responsable bi ma nekk Touba moo waral ma jël pis yooyu suuf ko teg fii tax fas yéene ñëpp am tuba bi moom gas yi jeex na fi tàkk jeex na fi tàkk. mbooloo mi ñu soltan yi moo ëpp importance ci ñun xëy na mën naa am ñu am ci dara waaye nag liñ ciy am mooy fexe ba nit ñi saa buñ ko soxlaa daar daar ñu mën leen koo indil. lool rek loolu rek moo tax prix bi ak yooyu noonu muy demee noonu boo xoolee tamit nan lañ def ba indi tiise yi xaw ne xaw na doon ay euh, posé problème ndax place lañ yor mi ngi marché Ocass waaye boo xoolee ñu indi ko centrale bii nii muy rii génn fànn bi li tax ñu indi ko fi mooy ñëpp ci lañ gën a mën a euh, xam milieu bi fan la moo tax ñu koy dajee fii ci place Ousmane euh, Ousmane bi di indi tiise yi. moom lañ defal élèves daal mooy li nga xam ne maa ko liggéey ci sama loxo. te lu njëkk li su ma ko deful woon nii col yi dana fi gën a manqué parce que yéen ñëpp am tam bañ a am gàllankoor moo ma digal ci loolu ba ma ko suuf yoruma xaalis mais damaa def samay lijjanti ci biir liggéey bi ni ñu ko bokkal bañ lijjanti ci si ma suuf ko dox ko soxna Ndeye mu defal ko élève li ma am man ci soxna Ndeye laa ko jëlee doonul man maa juug rek li fédération bi war a jaay di ko jaay ci sama kër damay jëli ci soxna day di jaay comme ni section yi jaay lool moo moo mat. day am pexe ngir xool nam fa muy génnee ay ay ay lool loolu mooy sabab ndax boo xoolee palmaan bi démb ci suba laa envoyé xaalis Dakar asalem euh, ñu indil ma palmaan bi démb ci ngoon <clears throat> seeni i jël na ko ba mu jeex euh, xëy na man na am ñu soxlawaat ko ndax xol lañ koy dayoo wala ab loolu lépp tamit du tardel am ñoom. waaw fi fu ñu am ay membre rek de wilaaye dem na fa moo am na moo xam nag mu manqué fa amuñ yooyu moyen comme yi ma def. wala mu mat fa ñooñu jënd lañu war a jënd waaye man daal. yi mu ko doon jaay Louga seq nañ ko ñoom doon nañ fa envoyé suñuy ci commande yi ñuy commande Diourbel kasaalika Taïf kenn demul ñu des Touba tamit noonu Kaolack noonu. Euh, mooy moom li ñu def mooy kenn ku nekk xam nañ sa présidente wax nañ ne it nag lépp loo xam ni dana ci jóge ci ci biir fédération bi lañ koy dañuy sant yàlla bu baax ndax euh, mel na ne. niñ ci gis jot a gis muy ñun liñ jaay ak soxna Ndey moom lim jaay buñ demee ba ci bis ba da ngeen gis ne beneen xar kanam amaat na ci yeesalaat tën yi. fanweeri piis daal jaay naa ko ci piis yi piis bu ne fanweeri mètre lay def yaakaar naa lool loolu junni mètre yaakaar naa li ko ko manqué bëriwul ñaar fukki piis it jaay naa ko ci ci ci palmaan bi ak juróom-ñaar loolu yaakaar naa lim bi. liñ ci bëgg nag mooy occasion am na ñu sol ko ñëpp sol ko nuróole wàcc. marche def am marche sol palmaan bi ak baxa bi comme ni ñu ko sëriñ Mbàkke digle woon ndax bis bi comme njukkal sëriñ Cheikh la ak sëriñ Mbàkke mi ko àggale te bis bi doon bis boo xam ne bisu fédération bi la waaye nag li ci ëpp importance dañoo wax ne wilaya bi la muy gone yi kon moo tax ñu génne tën yi fas yéene maanaam ku ci bokk bég ku ci bokk tamit bég ñoo xam ne lépp lislaam la moo tax tën yi tasaaroo na ñëpp danañ ko am bu ko defee buñ ci jógee nag kenn du am problème mu tënk soxna Faty Khary Lo moom itam biñ fa jógee taataanal nañ ko suñ micro mu jox ñu kàddu soññee yi pour mboolem ki koo xam ne yaa ngi jógee fii di dem nga ànd ab yar ànd ak ay teggin kàddu yi lañ fa digtal ñu teewlu ko. ba tey ci li ñu wax rek dem ak dikk bi mooy ñëpp ànd ak yar ak i teggin ndax woote bu rëy na sëriñ bi ñëpp la jaboote man ngaa gis koo xam ne nii mën nga ko ñàkkee teggin fekk na jàpp nga ni nit la waaye du nit woote bi ñëpp ko seq ku ne am na ci te it nag ñun ñi ñoo fi jóge waaye ñun ñiit lañ fay fekki ndax càll ak moom benn la ki nga gis fii ci Touba ni mu comporté woon ni la ki nekk la kaa li ci des mooy respecté sa bopp xam yaay kan ñaareel ba mooy xam li tax sëriñ sëriñ sëriñ Cheikh yëkkati daje bi ak fédération li ci jiitu mooy yar ak i teggin li ci jiitu mooy jàppalante te yàlla li ci jiitu mooy koo gis nga def ko ne sa bopp ndax wax na ne képp koo xam ne ni ci yéen am na carte na ko def na ki nga bokkal nday ak baay lu yiteem di sa yite lu ko metti metti la lu ko tis tis la luy bané xam nga jogé it doxandu nañ ci Serigne Thierno Fall nga xamné mom itam ci tayari la bok waye it nekk membre ci wa social mom itam wax nañu niñ ko wajalé ñom wa social ci dem bi ak ci bi kaddu yi lañu waaw bis biñu wajé nañ ko bu baaxa baaxa baax def nañ ci ay réunion euh maintes euh fi nga xamné ñun wa social nak liñ ci gëna a basé moy carte invitation daal la non joxé invitation yi nak def nañ ci ben benn tour boo xam ni wër nañ buñu ko sëñ Moussa yëpp jox nañ leen kenn ku nekk gar euh, mboolem ci kër sëñ Tuubaa yi fu fédération am dem nañ fa jox la carte euh, seulement rek li problème mooy yeex gi yeex carte yi yeex a ñëw ndax carte yi vraiment bu nekkee ba mu def 4 jours wala 3 jours ñu koy distribuer dana xaw a xaw naa sooxee waaye fépp fu dem itam lan fay leer mooy dañuy jegu rek wax leen ne leen daal gor beeg ak ak ak yooyu xewoon moo tax ba yu fi xaw a tardé. waye euh, distribution mom lepp bana defal na aussi ay bats yo xamni defal na ko jox ci ci membre wilaay bu dem rek da nga am ben bats bo xamni ci wilaay Touba ci leen ma a mën a xàmmee ñooñu waaye itam ay xéewal yo xamni ni allah bi da nga gungé suñu membre ci yoon wi lu melni ay ndox ak yoyu ba duñ mar duñu xif dara duñ am ci ben problème loolu tam ñoo ngi ñoo ngi taxaw baax baax la ngay des tamit bu ñu àggee itam ci wa wa Dakar fépp foo xamni jëmulun ñu fa rek ñu jëm fa ànd ñam ci liggéey bi ñoo ngi ñoo ngi loolu tam euh, defe naa waa Croix-Rouge itam ñu ngi ciy dox euh, bu ko defee membres yi nga xam ne ñoom lañu àndal ñu fexe ba ànd ak euh, wàllu Croix-Rouge wut ay garab yoo xam ni collecte na ay garab yoo xam ni defe naa Serigne Khadim Lo moo na ko baaxee ngir maanaam képp koo xam ne am nga problème ci mi rek wala nga am ay difficulté ñu mën la cee jàppale mën la ci loolu tam ñu ngi ciy dox bu baax a baax mbooloo mi nag li mooy tey li ñu leen jëlale woon ci biir marché wi ci waajtaay xam ne nii waa wilaay ñu ngi koy wàcc ñaari fan yooyu ñu ngi koy amal foofee ca Ndakaaru muy fàttaliku Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Mbacke Soxna Lo ki leen ko fa doon jëlal nekk seen mbokk Moustapha Niass Touba Belal point net ànd woon ko ak Yeete TV noonu lañ ko fas yéene defalee le 19 ak le lépp loo xam ne ñu ngi am mi ngi am foofee ca Ndakaaru ñu fas yéene leen ko indi ci seen site internet bi Touba Belal point net ak Yeete TV jàmm ak jàmm.